xamante ni mooy communiqué ñu jële ko ci euh, ci capitaine Omar Touré nekkoon fi nga xamante ni moom mooy section de recherche euh, bu Colobane di gendarmerie nationale alors li nga xamante ni euh, moom la def ci communiqué boobu ginaaw bi mu teg teggee ndombal tànkam daal di koy jébal ñi nga xamante ni ñoom la ko war a jébal moom li tax mu wax mu def loolu ci lettre bi nga xamante ni daf ko bind moom nee na moom Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moom mooy Adji Sarr seen mbir ñoom ñaar ndax xam nga ni plainte boobu ñëpp xam nañ ci moom ci loxoom la ñëwoon moom ci boppam waaye nee na yàggul dara dafa gis ay ay menaces ay menaces de mort ak ay mbir yoo xamante dañ koy topp alors bi mu demee ba mbir moomu jaaxal ko mu gis ay nit yoo xamante ni dañ koy topp guddeeg bëccëg ba di ko topp ci biir famem ba di ko topp ci wàllu jokkoom téléphone ci la defee ay euh, ay mbir maanaam laajte bi mu laajte ñu ne ko euh, ñu nga xamante ni ñoom ñoo lay topp ñooy euh, direction nationale du renseignement sénégalais maanaam renseignement renseignement généraux yi nga xamante ni ñu ngi jokk ci nguuru Sénégal. nee na loolu bi mu ko jaaxalee mu daal di bind benn lettre le 3 mars lettre ba daal di koy adressé ñi nga xamante ni ñoom ñooy njiitam. daat leen wax li nga xamante ni moom lay dund ndax ñàkk sécurité bi mu euh, nekkee ak mbir mi nga xamante ni bakkanam xaj na si ak topp bi ñu koy topp guddeeg bëccëg ba di lijjanti ba ci biir fameem li nga xamante ni moom la ñu lijjanti alors moom ñoo ñooñu doon def loolu dañoo jortoon ni moom dafa am ay link ak ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko nee na ginnaaw bu mu bindee lettre bi toog ab diir ay bés gisul benn yoon euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko jiite daal di ci yëy yàbbi te tontu ko te waxuñu ko si dara mu gis ni loolu du dëgg lu yoon ndax loolu dañuy euh, violer li nga xamante ni moom mooy euh, droit constitutionnel ak euh, li nga xamante ni moom mooy ay droit am dañu koy violer te loolu yoon nanguwu ko rawatina moom du n'importe qui ci réew mi ndax yàgg na liggéeyal Sénégal ci lépp te moom musul nangu li nga xamante ni moom mooy injustice ñu fàttali leen ni dossier bi balaa mu doon sax ñu ko doon boucler moom procureur dafa jëloon dossier bi ci loxoom waaye nag euh, bi ñu jàppee ni PV yi dañ ko fuité woon maanaam PV yi presse bi dañ si jotoon te moom nee na ci kàddoom ki nga xamante ni moom mooy capitaine mooy commandant bi moom nee na xamul euh, lan moo fuité woon loolu waaye li ko jaaxal mooy ak dum si mënti doon waruñu woon di ko toppee topp bu ñaaw boobu noonu ndax nee na nit mënul prouver te nit mënul wax benn yoon ci ni moom dafa am ay ay link muy téléphone que muy gisante ci digganteem ak ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko ginnaaw bi mu jaajëfalee ñëpp ñi nga xamante ni ñoom la doon liggéeyal ñëpp ñi nga ni ñoom ñooy doon liggéeyal ñu nekk section de recherche ba daal dinay gërëm ki nga xamante ni mooy Ahmadou Bamba ak El Hadj Malick Sy ak bay ñas sante sant kilifa diine yooyu gërëm na ñi nga xamante ni ñoom looy ñoom lay euh, ñoom la liggéeyal ci wàllu armée bi ñoom la doon liggéeyal ci wàllu euh, ñi nga xamante ni euh, ay collaborateur am laa leen mën a tuddee nee na sénégalais yi bu ñu déglu ki nga xamante ni moom mooy ministre de l'intérieur bu ñu déglu ki nga xamante ni moom mooy procureur ndax nee na ministre de l'intérieur warul génn sax naan dafay dafay euh, menacer naan dafay tëkku bay wax ay mbiri terroriste ba léegi euh, ci euh, li nga xamante ni moom mooy lettre bi daal di nay wax ni sénégalais yi nañu nañu déglu ki nga xamante ni moom mooy suñu kilifa diini yi te bañ a déglu ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñooñu nga xamante ñoo jokk ci état bi nee na tamit euh, sénégalais bu ñu déglu ki nga xamante ni moom mooy Idriss Seck ñu fàttali leen démb Idriss Seck daf loon def benn vidéo naan Ousmane Sonko na delloo ginnaaw ci li mu waxoon ndax Idriss Seck ci ay waxam jàpp na ni Ousmane Sonko euh, moom moo wax li tax xale yi génn waaye ñu ko eggale leen li nga xamante ni moom mooy lettre ba léegi ci waxam nee na sénégalais yi bu ñu déglu Idriss Seck. sénégalais yi li ñuy def euh, seen droit la maanaam droit génn wax li nga xamante ni moom moo la métti nee na mi ngi ci ginnaaw peuple sénégalais bi di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi koy euh, jàppale ak ñëpp ñi nga xamante ni ñoom la doon liggéeyandool waaye ci gàttal loolu mooy mbir mi nga xamante ni moom la bind dañ ko tënk euh, dañ ko tënk ci wolof pour leeral leen ko li tax mi nga xam li tax moom mu daal di démissionné waaye ñu wax leen ki nga xamante ni moom mooy Amadou doom si président Macky Sall ginnaaw bu ñu paree si lettre boobu moom démb gis nañ ko fi nga xamante ni moom mooy New York %e réewu États-Unis muy fêté :fra am moom ak euh, doomu Idrissa Seck mu mel ne tamit loolu neexul sénégalais :fra yu bëree bëri fi réew mi toll nii nit ñi di dee ñu gis ni euh, ki nga xamante ni moom mooy doomu njiitu réew mi mi ngi fêté :fra anniversaire :fra am fële salaamaaleykum waa Sénégal man la capitaine :fra bu nekkoon officier :fra section de :fra recherche :fra bu gendarmerie :fra de :fra Colobane ce matin gis ngeen ne dama posté :fra benn message :fra si sama sama Facebook